di suñu fukkeelu daje <clears throat> ak juróom ñeent ci weeru màgg wi chehru ramadan bés bu nekk ñu daje fii trente minutes jël benn bind ci suñu diine fàttalikonte ko suñu biir démb ñu ubbi woon benn bunt ca bunt boobu moo nekkoon la nga xam ne mooy jëf yi xol di jëf te moo ëpp solo lool jëf yi nga xam ni li nga xame ne mooy ay cër da koy jëf doonte ne bu nekk day mottali moroomam démb jëloon nañ ca lii di yéene ak yéene nam mën nam ware ci bépp jëf bu yàlla digle nam dul jëriñee ci bépp jëf bu yàlla xaraamal boo ci yéenee jàmm yàlla yit yàlla du ko nangu waaye ñu gisoo nit yi yàlla dagganal muy lekk yaag naan yaag sëy yaag liggéey yaag yépp lu ci jaam bi yéene sakku ci ngërëmal yàlla mën na ko ca am gannaaw ba ñu waxtaane woon ak yéen li nga xam ne mooy at tawba ca muy tuub dellu ci yàlla boroom xam-xam yu jëkk ya daanañ leen laaj waaw jaam bi moom di sabbal yàlla ak di jégguluy bàkkaaram ban moo ci gën a yey da gis ne ku mel ni ibnul qayim al jawzi rahimahullah daana wax ni mbubb de bu tilimi lam gën a aajowoo mooy ñu fóot ko bala ñu koo sol te it mbokk mi ngi noonu jaam bi balaa jëm ci boroomam di ko sabbaal ak di ko def lu nekk la gën a yey mooy mu jéggalu ko ba yëg ne moom kat set na doog ko jublu ci boroomam moo taxoon ñu ubbi bunt bu màgg boobee nga xam ne mooy ak tuub tey nag mbokkoo ñu ñëw ci beneen jukkoo mooy beneen jëf boo xam ne xolo koy jëf mooy lañuy ñuy tuddee as sidq mooy dëggu ci sa biir xol nañu xam ne mbokk jullit lii di ak dëggu bokk na luñ leen junjoon démb wala barki démb mooy kii nga xam ne muy abubakarin saddiq ñu tudde woon abu abubakar mu dëgguma mu raw xeet bi yépp gannaaw yonent bi sallallahu alayhi dara mayu ko ko woon lu dul melokaan ba ko yonent yàlla bi melaloon mooy daa dëggu woon ca xolam ba tey da ngay gis doomu aadama ni xolam nekkee fondement ak lum mën a wax lum mën a jëf ci dëgguwul ca xolam égal zéro ca yàlla suñ borom yàlla jalla wa ala ni ida jaaka almunafiquuna qaalu nashhadu innaka la rasulullah nafiqi de bu ñu ñëwee ñi ngi naan seede nañ ne ca dëgg dëgg dëgg yow rek yaay yonenti yàlla bi suñ borom yàlla ne wallahu yaalamu innaka la rasulu naam yàlla xam ne ne yow yonentam nga wallahu yashhadu inna almunafiqina la kaasibun waaye yàllaa ngi seede ne naafiq yi dañuy fen ama ndax waxuñu dëgg aha kay wax nañ dëgg fan la fen yi nekk mooy lañ ne seede nañ ne yonenti yàlla la ca seen biir xol waxuñu dëgg kàddu gi ñu ngi koy wax rekk ngir yi am intérêt ya ñuy jële ci lislaam muccit ca lañ leen mën a teg ci daani lislaam lool dong moo tax ñu wax wax jooje su ko defee mbokk ak dëggu buñ koy wax mi ngi jëkk jëm sa digganteeg sa boroom nga dëggu ci ni ko gëme ne bokkalewoo ko ak dara dëggu ci ne pare nga ngir def ay ndigalam bàyyi ay tereem dëggu ci ne loolu it lépp loo cay jëf nga ne xam ne lii yàlla rekk moo tax nga koy def leneen i intérêt àdduna amu ca mbokk ku mel ni mooy ki dëggu digganteem ak boroomam ñooñu ñooy ñi gën a tedd gannaaw yonente yàlla yi muy li ñuy tuddee as-siddiquun gannaaw ba it sa digganteek say moroom jullit war naa góorgóorlu ba lu muy wax ak ay moroomam mu doon wax joo xam ne wax ju dëggu la lu muy jëf leen jëflanteeg ñoom doon jëf joo xam ne jëf ju dëggu la di tànn ay la nga xam ne mooy waxam ba du ci dugal lenn loo xame ni nii day doon ay fen la lu mel ni la waaje waxoon Ali ibn Abi Talib ne ko yow day dama la bëgg lool yow yaay ki nga xam ne loo wax def ko ali na ko déedéet du lu ma wax def ko de waaye lu ma wax nag fës yéene naa koo def mbokk loolu nga xam ne moom ngay tànn lépp loo wax nga fës yéene dogu ci sa xol ni nii nga ko waxe nga koy defee loolu la ñu yonent bi alayhi salaam tegtaloon alaykum bi sidq fa inna sidqa yahdi ila albir وان البر يهدي الى الجنه وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا متفق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم دا دون دينك خيت بي ني اي واي ماغي لين دي دينك نين دغ ندخ دغ داي داي يوبو سي نيت باخ ndax dootoo worati dootoo feneti dootoo tasati yaakaar day yóbbu nit ki mu baax ca mbaax day mooy yóbbu aljanna doomu aadama bi du deñ di dëggu di jéem jéem a tànn ak dëggu ci ay waxam ak i jëfam ba baa suñu boroom ne malaaka yi sama jaam diw day tudde leen ko diw mu dëgg mi comme ni ñuy waxe abubakar siddiq su ko defee da dégg malaaka yi naan a fat caam as-siddiqa a bilal caam as-siddiq moodu njaay ila axiri képp ku ñuy tuddati rek dañ ciy boole mooy mu dëgguma waaye mbokk diine lislaam mooy diine la nga xam ne ni ñaari parti la siq suñu borom moo ñu séddile ñaari parti fariqun fil janna wa fariqun fi sair mbooloo muy jëm aljanna yàlla nañ ci yàlla boole ak mbooloo muy jëm sawara ci loolu lañuy waxoon ni moytul leen ma fen fen day day yóbbu ci kaccorte na am nit bu ma nee fen jombatu la sàcc bu ñu waxee mu miim ko jombatul a njaalo bu ñu waxee mu miim ko jombatul tas yaakaar jombatul wor jombatul lépp maadaama fenkat la mu ne fen day yóbbu ci ak mbon ca ak mbon googee di génn topp mu yóbbu nit ki sawara mu ne nit ki du deñ nekk fenkat nekk fenkat baba suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne malaaka yi tudde leen kii day mu nekk ka nga xam ne mooy diw fenkat bi su ko defee foo ko malaaka yi di tuddee dañ cey boole fenkat bi te loolu it lu ci bari yàlla dana koy wàcce ci xoli doomu aadama yi mooy nit ku dëggu ca dëggu ga wér lu ci bari da ngay gis nit ñi buñ naan hoo diw ak a ñàkk caaxaan ak a dëggu duñ ko sax tey waaye bu dee da nekk fenkat workat fu ñuy waxee ba tudd la ah diw ak cam xanaa du diw a ko wax mu ngi noonu su ko defee mbokk doomu aadama bi jéem a góorgóorlu kémtaleel kattanam digganteem ak boroomam jalla wa ala mu dëggu ci jaamu yàlla ka waaye digganteem ak ay moroomam ngal waay na doon koo xam ne nii ku ci dëggu la suñ su lu jëfu tey bu xol di jëf moom lañuy tuddee almahabba almahabba moom mooy cofeel ca mooy bëgg yàlla bëgg yenent yàlla bëgg la nga xam ne muy jullit ni yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ni salaasun من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان نتي ليكم نكتيو دانا تموسي تفكن يلا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما مدم يلا يرنتي بي جنلكو كنين كدل يلا يرنتي بي وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله مي bëgg dara du tax mu bëgg ko ludul ngir yàlla wa an yakraha an yarji'a ila al-kufri ba'da iz anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yulqa fi an-nar muttafaqun alayhi mu bëgg nit ki dara taxul mu bëgg ko ludul yàlla waaye bañ a dellu ci kéeféer gannaaw ba ka ci yàlla musali comme nim bañoona dellu ci lakk gum nekkoon ñu génne ko ci ba pare na muy bañ a delloo ca lakk ga noonu lay bañ a delloo ci kéeféer mbokk li mooy cofeel mbokk jullit yàlla yeneen tam ñoo koy gënal lu nekk lan mooy mandarga bi mooy ndigali yàlla ak ndigali yeneenti yàlla du ko weccee ndigali keneen ku dul yàlla ak yeneenti yàlla la yàlla wax ngalawaay na asamaan suuf daje woon ci leneen lu dul loolu faaliwu ko maadaama daa safaanoo ak ndigalu yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca loolu moom la borom bi di wax qul in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uuni yuhbibkum allah bi ahlul kitaab di bàkku naan ñun dañoo bëgg yàlla suñu borom ni leen déet bëgg yàlla du wax bëgg yàlla jëf la su dee ne da ngeen bëgg ngeen yàlla topp leen yonent yàlla bi yàlla bëgg leen su ko defee mbokk képp ko dégg ñuy rey seen bopp ci guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bâche yaag million yaag lu ne ñu koy def mbokk du loolu la yàlla di xoole ne yow bëgg nga yàlla bëgg nga yonent yàlla waaye yàllaa ngi xoole ne bëgg nga yàlla bëgg nga yonent yàlla ci jamono bi nga xamee ni nii yàlla ak yonentam topp leen moo la gënal topp keneen ku dul yàlla ak bi waaye mbëggeel googu mbokk yit bokk na ci bëgg jaami yàlla yi nga xam ne dañoo gëm yàlla topp yàlla nga bëgg leen ca yàlla tax kon doo weccee mukk seenu topp ci topp ak yàlla ndax yàlla rek tax nga bëgg ko yaa ngi ko bëgg ngir li mu topp yàlla ak yonent bi loolee mbokk mooy la gën a màgg ci cofeel bu doomu aadama di am gëm yàlla noonu it nga bëgg yàlla bëgg yonent yàlla bëgg jaam yàlla yi noonu ngay bañe lépp loo xam ne ak kéeféer la lépp loo xam ne mooy yàlla la bokkaale la shirk la lépp lu yàlla bëggul nga bañ ko comme ni nga bañ a tàbb ci biir sawara mbokk lii tamit mbir la boo xam ne xol moo koy def doomu aadama yu bari fa la ñu rawe la nga xam ne nii moom mooy seeni moroom su ko defee doomu aadama bi war naa bëgg yàlla bëgg yonent yàlla am maa nag am na yeneeni mbëggeel yoo xam ne loolu bëggeel naturel la taxul ñuy wax waa ji bëgg yaayam waa ji bëgg doomam loolu ay bëggeel la yoo xam ne yu naturel la waaye la tax ñuy wax ci cofeel mooy kii ab chinois la amulu la benn intérêt àdduna waaye ne gis nga ko mu diggal yàlla digg ci yàlla kooku wareef la nga bëgg ko ci yàlla tax kii yéen a bokk ndey ak bàyyi moo la fat ci këram moo lay dundal léppam sa lépp moo ko yor waaye ngi gis ko mu noonu yàlla noonu ak yonent yàlla kooku saf noonu lay daldi doon ndax yow la tax ngay bëgg ci yàlla tax la tax ngay bañ mooy ci yàlla tax loolee kon di bunt boo xam ne nii it ngalawaay ñu bàyyi ci xel bu baax am ma beneen girs bi nga xam ne xol da koy jëf mooy li ñuy tuddee alxawf mooy ragal yàlla nag mbokk yàlla bëgg giñ koy bëgg daa fekk ñu xam la nga xam ne mooy kàttanam xam la nga xamee ni nii moom mooy ay ndigalam xam ay tereem loolu nag jaam bi ragal mbaar man lii yàlla digle matal naa ko mbaa yàlla tere moytu naa ko moman man ëllëg su ma ñëwee yowmal qiyaama anal fan la ma yàlla di féetale loolee mbokk da ngay gis ni dafa war a sax ci xolu doomu aadama bi bokk na ko texee di texee di te yal na yàlla sàmm waa sénégal ak ñee nuroog ñoom ci àdduna ji ñun suñu diine mbokk amul ragal yàlla suñ diine cofeel kese la ak yaakaar waaw mooy am ne kilifa yi fi jaar ne ñun àjjanay gàcce rek la ñuy bañ waaye mag ñi ñoom liggéey nañ ba pare mbokk loolu njuumte la loolu erreur la soo delloo ci yonent yàlla yi ñoom ñépp dañ doon woo borom bi rëhaban wa rëhaba woo ko di yaakaar ay xéewalam di tiit la nga xam ne moom mooy mbugalam su ko defee doomu aadama bi tànk demoo ba dekki ba yàlla jox la sa téere ne la àjjana nga jëm la nga xam ne mooy tiitaange boobu du génn si biir xol waaye nag tiitaange boobu it warul fees xol ba dell ba nga jàpp ne rek si fini man alku naa déedéet am na beneen jaamu yàlla jaamu yàlla xol moom la ñuy tuddee arraja ca mooy yaakaar suñu borom subhanahu wa taala yaakaar ne kat man day ab jaam laa boo xam ni bu saggan laa naam waaye li may góorgóorloo ko néew ci jaamu yàlla yi di xeexeeg sama bakkan ci tere yi maa ngi njort ci yàlla ne yàlla subhanahu wa taala day dana ma ko nangul ba musal ma ci mbugalam ca loolu yonent bi alei salaam daana wax ne borom bi nee na ana inda zanni addi bi man maa ngi ci fi sama borom yaakaar ci man yaakaar nag dafa am ñaari façon yaakaar yaakaarug neen ak yaakaarug dëgg lan mooy yaakaarug neen li yàlla digle yépp nga lànk defoo ca dara lim tere yépp nga sax ca ba pare nag yaakaar ne yàlla dalay jéggal yërëm la mbokk loolu caaxaan la amma yaakaarug dëgg mooy lan li yàlla santaane yaa ngi ci sa kemtalal kattan lam tere yaa ngi cay daw sa kemtalal kattan su bor boobaa day moom mën ngaa yaakaar ci yàlla ne yàlla dana la jéggal yàlla dana doon koo xam ne nii ku la yërëm la mbokk suñu boroom dañ koo war a ragal dañ koo war a yaakaar yonent bi alayhi salaatu wasalaam keroog ba muy jàng màndargay julit ñi ba bo ba yegg ca fa yàlla di wax walazina yu'tuuna ma ataw wa qulubuhum wajila ak ñi nga xam ne nii day dañuy jooxe lañuy jooxe ci diine ji waaye seen xol yaa ngi tiit ma man lii ma def ndax yàlla dana ko nangu su ñaay Aysa dana ko waaw xanaa ñii mooy sa njaaloo ko ci xeet bi sa lekk ko ci riba xeet bi def li ñuy def ba pare di ragal di tiit nag bés su ñu dajeek seen boroom mu ne ko déedéet Aysa aay bi yàllaa ngi ciy waxal ñiy julli di jox zakkat di at màkk ba pare nag ragal ma ndax man lii may def yàlla ni ngi koy nangu am nanguwoo ko ndax suñ borom mu ne innama yataqabbalu llahu min almuttaqin yàlla ngi nangul ñi ragal yàlla ndax man bokk naa ci ñi ragal yàlla am déet lii tamit mbokk mooy ñetti jukko yooyu ma leen wax muy almahabba di cafeel alxawf di ragal alraja di yaakaar borom xam-xam yi dañ naan jaam bi jëm ci yàlla dafa mel ne am picc picc da ngay gis bopp jitu jiitu ca loolu mooy cofeel gi nga am ci yàlla bëgg yegg ci moom waaye ñaari laaf yi nga xam ne lay dimmini ko benn laaf ba mooy ragal yàlla beneen laaf ba mooy yaakaar yàlla picc moo jàppoon damm benn laafam da ngay gis ne naaw ba jeex nga dagg bopp ba waxi nappi ko ñu bépp doomu aadama boo xam ne amul cofeel ci yàlla kookee munta dem ci ku amul ragal yàlla mënul dem ci yàlla ki yaakaarul yàlla mënul dem ci yàlla lii lépp mbokk kon jëf la yoo xam ne xol moo koy jëf ku ne ci ñun war caa bàyyi xel naka noonu ci jëf yi xolit la ca nekkee lu ñuy tudde alxushuu xushuu mooy toroxlul yàlla jalla wa ala doonte ni yëgoo benn bàkkaar boo def benn gàttal li boo def waye nga yek man ga yu yàlla jalla wa ala khola suñu borom subhanahu wa taala mune wa inna min al hijarati ma yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqu fa yakhruju minhu al ma wa inna minha lama yahbitu min khashyati allah wa ma allah bi gaafilin amma ta'malun ayyan yéen doomu aadama xam li ni day li di montagne am na ci yoo xam ne ña ngay xar ndox may wala ngaan mooy dex yaa nga cay wàcce di dem am yoo xam ne dana xar ay ay ay dex génne ca am na ci nag yoo xam ne dañuy tëb mujj ñu ne fëx màbb ngir ragal yàlla kese mbokk montagne du sàcc du njaaloo du fen mi ngi sabbal yàlla guddeeg bëccëg waaye toroxlu gi ñu toroxlul yàlla day dem ba léeg-léeg nga gis montagne bu faq ngir ragal yàlla موم لا بروم بي لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله القران جيما واتي دوم ادمي بلون مونتاني لا كو واتي لينكو دان ترخلو با نير غير رجل يالله لولين بوكو جريت جريت داكو وورا مينغا و غيرو دوندم لوم بون بون غالا واي بوكو مونتا مينغو و سي غيرو nga bokk ca ñe borom bi subhanahu wa taala di wax naan qad aflaha almuminuun alladina hum fi salatihim xaashiun texe ne julit ñi nga xam ni seen julli dañ ciy toroxlu su ko defee doomu aadama mi nga jéem a tàmmal sa bopp heure boo taxawee bana allahu akbar ci farata ci naafila sa xol bi toroxlu nga xam ne nag sànq yaa nga doon wax ak sa soxna sa directeur de service sab xarit tey nag yaa ngi taxaw di wax ak rabbu samawati wal ard yaa ngi taxaw di wax ak ki bind ki moom ki yor sa àjjana yor sa safara yor sa texe mbokk ko mel noonu danga war a nag toroxlu ci kanamam ah daa di julli na xam ne noonu lay islaam sante ñu jullee ko loolu moom mbokk mënul war a ñàkk ci dund la nga xam ne mooy doomu aadama bi mbokk bu ñu xoolee beneen jëf ci loo xam ne xol da koy jëf mooy li ñuy tuddee as-sabr ca mooy li nga xam ne mooy ak muñ mbokk muñ dañ naan daanika genn wàllu diine moom muy muñ beneen genn wàll ga moom mooy sant muñ suñu borom yàlla nee na innama yuwaffa saabiruuna ajrahum bi xisaab yàlla day dana matal muñkat yi seen pay ci loo xam ne kenn du ko réglé yàlla day tibb rek jox leen ca mbokk ku yàlla tibb jox la ca kenn réglewu ko loolee ca lañ gën a yaakaar allaxira ca la bokk yonent bi alayhi salaam teg ca ne wa man yatasabbar yusabbiruhu allah wa ma utiya ahadan wa ma utiya ahadun ataan xayrun wa awsa'u min as-sabr amul kenn koo xam ni dana muñ muñ gu rafet nappee ko yàlla teg lu dul yàlla may ko kattan gu mën a muñee mi ngi noonu gannaaw ba mu ne yàlla mayul benn jaam may gu gën a yaatu ci àdduna lu toll ni la nga xam ne muy muñ xoolal ba mu teggee ay yeneen tam ñoom ñëpp dane kullum min as-sabirin ñoom ñëpp ca kër ya lañu bokk su ko defee mbokk muñ googu nag nañu xam ni dafay séddilikoo ci ñetti façon muy muñ ba def li yàlla subhanahu wa taala digle boobu suñu borom mi ngi ñu ci nettali bi gën a kawe ci téereb yàlla bi mooy keroog bi mu santee xaritam bi Ibrahim demal rendi sa doom ji Ismail suñu borom yàlla subhanahu wa taala ni ismail def na baayam ya abati fal ma tu'mar satajudini insha allah min as-sabirin ay yal sama sama sama baay defal li la sa borom sant dang ma fekk ma bokk ci muñ kat yi te nam ko waxe won non la ko defe and ak bayam dem tedd na ko bay rendil motax suñu borom yalla teggo ko ismail mu ngi noonu innahu kaana saadiqal waat ku dëgg woon la ci ay digam loolee mbokk benn misaal la rek gannaaw ba nag sa boroom moo la sant wooral moo la sant alal ji génn ci aj makka moo la sant alal ji génn ci zakat moo la sant demal jihaad moo la sant ne del yewu xaaju guddi sangul dem ca jàkka ja mooy li la yàlla sant yépp mbokk soo muñul xeex ak bakkan bi du sotti xatta julli gi suñu borom mu ne wa innaha la kabiratun illa alal xaashiin julli saxal waxtu julli juróom doo ko faat mukk dara du tax nga faat julli mbokk loolu muñ ko rek moo ko man ko torox yàlla rek moo ko man loolu kon mooy muñ gu jëkk gi amma beneen muñ ci mooy muñ la nga xamee ni nii moom mooy bakkaar yi muñ bakkaar yi mbokk njaaloo ak a neex yow jeune xale bu jigéen bu rafet dikkal la laaju la dara mbokk loolu neex na de xeex ba ngay xeex ak sa bakkan di ko muñ xamal ni ci jaamu yàlla yi génn a la bokk kees gi nga yor yow am nga pexe ba man cee jël un mois un million par mois falsifié ba du feeñ fenn waaye loolu nga muñ ko ci yàlla tax mbokk loolu xam nañ ne lu metti la lépp luy bànneex seytaane taxawal nañ taxaw na ci kanamu borom bi ne la uzayyinanna lahum fil ard dinaa leen taaralal ci kaw suuf lépp lu yàlla xaraamal rek seytaane da koy taaral su ko defee jullit il faut nga xeex ak sa bakkan ngiree nag mën a mucc ci loolu amma beneen façon muñ bi muy ñetteelu muñ bi mooy nattu yi yàlla teg sa kaw su boobaa itamit nga mën ko mën ko rafet yaa doon liggéey xëy xëy ñëw ñu licencié la yaa amoon wérgi yaram tey yaa ngi nii paralysé yaa nekkoon ci sa jàmm tey ñu xëy xëy tëj lu ci kaso loolee mbokk ay mbir yu metti la waaye nag danga koy muñ muñ ko rafet na doon directement la jóge ci yàlla dal sa kaw wala yàllaa ko jaarale ci ay jaamam mu dal sa kaw ay nit dab la agressé la gaañ la jël sa alal wala dajji sa kër wala nit ko bon ñëw taxaw ak yow wax la wax ju ñaaw xas la yàq sab der yooyu yépp mbokk ay nattu la yoo xam ne ni jaam bi muñ gëm kay muñ muñ gu rafet ci yàlla tax loolee jëfi xol la joo xam ni dafay a ah, màgg lool ca yàlla doonte ne muñ gën nag bu saxee ca xol ba day feeñ ca jëf ya làmmiñ ba du wax lu dul lu neex yàlla jëf yi duñu jëf lu dul lu neex yàlla loolu lañuy xamee ni xol bi muñ ñu muñ gu rafet waaye képp koo xam ne ba natt bu ñëwee làmmiñ baa ngay wér wéri jëmm jaa ngay fët fëti loolee mbokk day woño ne xol ba lam waroon a def defu ko waaye li ñuy tudde as sabarul jamil mooy muñ gu rafet mooy natt yi lu mu tar tar dafa jóge ci yàlla directement dafa jóge ci sa moromi jaam li ngay def moy as sabrun jamil ca moy lamine bi mom do ci wax lu dul lu neex yàlla doonte na xol bi nak mën naa naqari yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam keroog ba doomam jëm mujjoon a am faato bi ibrahim alayhi salam yàlla bayiko mu dund un an et demi xolal fofu rek xale bi ni mi mel bo ñew mu daw gàttandu di wax ak yow wa majina yep bëgg ko yonente bi alayhi salam gëmeewu ko ñu xëy xëy rek suñu borom indi febar ibrahima jalti jalti sukurat ci kanamam faatu ci kanamam sallallahu alayhi wa sallam ba di génne rangooñ kii di saad ibnu ubada na ko anta ya rasulullah ah yow yonente yàlla da ngay jooy ko faatu mu ne ko déedéet saad lii rahma la yërmande la bu yàlla di tabbal ci xolu ko ko neex ci ay jaamam wa innama yarhamu llahu min ibadihi rohama yàlla ñi muy ci ay jaamam ma ñuy waaye isaat xol day dana am tiis bët yi daan génn waaye làmmiñ yu moom duñ ci wax lu dul neex suñu boroom gis ngeen mbokk jullit xol bi day mën naa tiisu na am natiiru doomu aadama sa doom dee na natiiru doomu aadama ah, oto ba takk na natiiru doomu aadama dàq nañ la fase nañ la loolu natiru doomu aadama xol bi moom dana naqari mën naa dem sax ba rangoon ñu tuuru ca loolu yàlla bañu ko même sa baay faatu sa soxna faatu nga tuur ay rangoon yàlla bañu ko day wane na yërmaane ngi mu ngi sa xol waaye mu ne làmmiñ wi nag moom duñ ci wax lu dul lu neex yàlla mbokk lii kon moom la ñuy tuddee muñ goo xam ne muñ gu rafet la di jëf boo xam ne nii ci jëfi xol yi ca la bokk su ko defee mbokk julit daa mel ne kat keppaar gi 30 minutes yañ diggante woon yegsi nañ ci kon incha allah dañuy joxante rendez-vous ba subaak jàmm doonte ni ñi ngi am yaakaar bu baax ci autorité yi yor réew mi nee nañu jumaa yi moom dañ ko ubbi ak jàkka yi ba ministre bi wax na sax ne ajjuma moom bëgg na nit ñi dem ci jàkka yi bisub tey bii nag ñi ngi ci discussion ba ñu paree ci discussion yi mën nañ koo ubbi tey mën nañ koo ubbi suba mbokk loolu ñi ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla ubbilaat ñu suñuy jàkka yi ñu dellu fa dellu gu rafet boo dem ña fa doon daje kenn bañ a manqué yàlla subhanahu wa taala may ñu kattan ñu mën faa dabantal lépp loo xamee ni nii rëccoon nañu ca lu paase te daje bañ fay daje moom mi moom jàngoro yi moom mi nga xam ne moom moom ay jaamam yàlla bu kenn contacté virus corona ci néegu yàlla ba yal na yàlla aar am néegam aar ay néegam sàmm leen ba képp koo xam ne ni dugg na fa yàlla sàmm ko aar ko ba du doon mukk koo xamee ni dafay contacté virus bal képp ko fa indi virus sax yal na ko fa yàlla teggee saafara ko fa innahu ala kulli shay'in qadir ميغي نونو مبوكو جليت والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته